auzu billahi min asheytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim ñu ngi leen di nuyu te di leen jaajëfal di wax ñi nga xamante ne aba noogun nan gaaw abonné ci chaîne bi ñi gan nan gaaw abonné tey partage vidéo te di ko sem te ko am ab laaj nga def ko ci suufu commentaire yi dana la ci dikka incha allah te nag ñu bëgg a dikk yéen ci vidéo bu am am solo bu am solo lool sax ci wàllum ku tëju koo xamante ni daraam dara dara dara daram duxut moo tax juk video bi eh, ngeen bàyyi ko xel bu baax a baax a baax niñ leen koy waxee ku ko defee noonu càngaay lu juróom-ñaari fan la waaye wallaahi ku ko defee noonu balaa juróom-ñaari fan yembat dana gis ci sa ci sa bopp ak eh, kiy yokkate gu maga maga mag lu am am la ku ko defee nii ñu koy da nga gis résultat wallahi da nga gis résultat lu amam solo la sax ndax nga koy defee da ngay bind da ngay wut juróom fukki xalima ak juróom benn seize xalima ngay wut xalima gu ne nga bind ca benn saar saar yu ñuy wax da ngay bind wax saafaati xalima ak boppam wax saariyaati xalima ak boppam wat tuuri xalima ak boppam war nañ mi xalima ak boppam war mursalaati xalima ak boppam war naasiaati xalima ak boppam waylun lil mutaffifiina xalim ak boppam wasamaay saadil buruuji xalim ak boppam wasamaay wa taarixi xalim ak boppam wal fajri xalim ak boppam wasamsi xalim ak boppam walleeli xalim ak boppam wadduhaa xalim ak boppam wal haadiyaati xalim ak boppam wal xasri xalim ak boppam waylun xalim ak boppam sesaar sesaar la soo paree noo koy def dangay lakk xalima yi taata xalima gi ak cat yi ngay boole lakk ko def ko ci biir saafara si Eh, wut juróom-ñaari parfum yu neex a neex a neex nga def ko ci wut juróom-ñaari ndoxu teen juróom-ñaari ndoxu teen boole ko moom sangoo ko juróom-ñaari fan wallahi lii ko ko def danga ci gis résultat ku umu ba mënoo am dara dara dara dara wala nga ubbi wala say affaire taxaw defal li nga xool bayra bu ama am doole la